yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñoom bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jaajëfal sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba di siyaare mbooleem ñi ñuy teewlu ñëpp ci réew mi eh, di dellu siwaat rek ci seen waxtaanu bis bi te mooy lu jëm ci weer wu màgg wi nga xam ne ci lañ nekk muy shahru ramadan di ñaan ñu dugg si ci bismillahi rahmaani rahim te defe ko ni ko suñ borom santaane tàggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu dellu si tey ci faratay koor ak sunna yi Eh, koor nag farata yi ñaar rekk la waaw ah, ñaari ñaari ñaari farata rekk la am bu njëkk bi mooy yéene yéene gi nag mu ngi tàbbee maanaam nga yéene ni fas yéene na maa woor yéene gi nag mu ngi tàbbee ci ginnaaw bu jant bi soowee ba nga dog ba noppi ba ba ñuy salaatu diggante boobu ci nga war a yéene fas yéene woor bis bis bi nga xamante ni moo nekk ci sa kanam bu fekkee nag da ngaa yéene ci bi koor gi di soog a tàmbali ne dangaa fa fas yéene woor koor gi yëpp am nga mën sa yéene sa yéene jooja dana yóbbaale weer wi yëpp su fekkee fàtte nga ko benn bés yéene jooja nga yéene woon ci tàmbali ba dana yóbbaale weer yëpp waaye su fekkee itam fàttewoo ko mën ngaa salaat yéene ji ndax dana tax sa koor gën a dëgër kon yéene mooy li jiitu ci. weeru koor mooy mooy benn farata bi ñaareelu farata bi mooy nga bàyyi lépp loo xam ni luy dog koor la mooy lu jëm ci lekk ak naan ak lu mel ni tox ak mbooleem yi nga xamante ni rek dina jàll ci putug doomu aadama ba dugg ci biiram ba mën koo teree woor kon lépp loo xamante ni luy dog kooruk nit la rek loola dañ koo génne ci euh, maanaam dañ koo dugal ci farata ji kon lekk ak naan daf caa bokk waaye itam bi ko jiitu mooy Euh, yéene ndax lépp loo xamante ni ci lislaam da nga koy def muy ak jaamu yàlla nga koy def te amoo ci yéene loola lislaam du ko nangu ndax lislaam mbiram lépp dafa tënku ci yéene kon yéene mooy benn farata bi ñaareelu farata bi mooy bàyyi lépp loo xam ne dana dog koor ci lekk ak naan ci bi bi bi bi nga xam ne salaatu nañ ba ba jant bi di so ñuy noddu timis diggante boobu lépp luy dog koor da ko war a bàyyi boobu mooy benn farata bi boobu mooy ñaareelu farata bi kon ñu jàll ci sunna yi sunna yi ñett la bi ci njëkk mooy xëdd xëdd dafa doon lu ñu fonk ci koor jamono bi nga koy def itam na doon jamono boo xamante ni da ngay dem ba ñuy bëgg salaatu nga xamante ni des na fukki minute wala fukki minute ak juróom ci diggante boobu ngay xëdd moo tax euh, lu ci sunna yi la bokk kon képp koo xamante ni mën nga ko nga fexe di ko di ko di ko di ko di ko def lu am solo la ñaareel bi euh, mooy teel a dog maanaam dañoo wax ne suñ xasee noddu timis jamono boobu rek da war a dog soo dogee nag ba noppi maanaam soog a dem julli ji dog nag ak ndogu dañoo yemul comme ni ko niñ ko niñ ko baaxoo defee ci aada da ngay wut lu mel ne tàndarma nga doge ko soo ko dogee gàllaxndiku da da ngay mën di dem julli ji soo jullee ba noppi nag bu la neexee nga dem daal di def say aaday bopp waaye nag li gën moom mooy nga nga nga teel a dog mooy bu noddee rek nga bañ ne xaaral ma julli ba noppi soog a def waaye nag bu ñu noddee rek nga wut donte tàndarma la soo amul tàndarma nga wut guuxu ndox nga guux ko su ko defee boo noppee nga daal di dem mën a mën a mën a mën a julli ji soo jullee ba noppi nag loo cay teg bu boobaa loola moom maanaam dagan na la ñetteel bi mooy euh, loolu mooy loolu mooy ñaareel bi mooy teel a dog ñetteel bi mooy téye sa làmmiñ ci lépp loo xamante ni lu amul njariñ la ndax waxtaan fi mu ne toog di waxtaan suba ba ngoon comme ni ñu ko baaxoo defee wala di lu mel ne euh, lido xeet yu mel noonu ñuy def euh, ki koy def toppuñu ko ci dara ndax amul bàkkaar waaye nag fexe ba téye sa làmmiñ ci lépp loo xam ne amul njariñ lu mel noona loolu laa tax ñuy wax moom ci sunna yi la bokk mooy su su soo xëyee nga fexe yor sa kurus di tudd yàlla wala nga yor sa kaamil bu alquran am sa dog booy def wala ngay wala benn salaatu ala bi nga koy def wala dara ci lu baax loo xamante ne da nga ko làmboo ci bis bi kon ñett yooyu mooy ñett yi nga xamante ne ñooy sunnay koor bi ci jiitu mooy xëdd te def ko ci waxtu wa muy balaa ñoo sala bu balaa ñoo salaatu rek bu jegee lool nga sag ko def bi ci topp mooy euh, nga teel a dog mooy euh, suñu demee ba ti ba nodd timis rek nga teel a dog soog a mën a dem defaat leneen looy def bi ko ñetteel nag euh, mooy téye sa làmmiñ ci lépp loo xamante ni amut njariñ kon loolu mooy yi nga xamante ni moom lañ doon indi tey ci farata yi ak sunna yi yàlla nañ suñu borom defal dégg topp wasalaamaaleykum wa maanaam lu jëm ci wàllum dog ak xëdd moom euh, ci la ñuy wax tey ci yóbbalu bis bi ñu xamal leen ni maanaam dog moom saa boo déggee noddu noddu boo njëkk a dégg rek ci jàkke yi mu noddu da ngay xam ni waxtu wa jot na nga daal di ndogu comme ni ñu ko santaane léegi bu dee xëdd itam jamono boo déggee jàkk ju njëkk salaatu rek da ngay daal di bàyyi da ngay daal di arrêté nga xam ne yow fi mu ne dara waratu la ci jamono boobu waaye naan fii laay dégloo jàkk jee laay déglu loolu moom amul ci lislaam moom waaw da bu buñ ndog buñ noddoo buñ noddee jàkk joo njëkk a dégg da ngay ndogu kon buñ buñ ñu salaatoo itam jàkk joo njëkk a dégg rek mu salaatu da ngaa war a xam ni xëdd ga moom fi mu ne fii la war a yam nga su ko defee daal di jàppaat tàmbaliwaat sa sa koor waaw loolu lañ doon bis bi غير ضيفنا أتى بالبسر والمداد أهلا وسهلا kon ñu ñëw ak yéen ci naafila ñaareelu bis bi naafila bi dañoo wax ne euh, man salla fiha sita rakaatin bi salaasi bi salaasi taslimatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatihatil kitab maratan wa inna aataynaaka alkawsara asara maratin laa min maqaamihi ilaa wa qad gafara allahu lahu wa kataba allahu min al ajri wa sawaabi kaman xajja alfa xajjin waxtamara wa tasaddaqa bi alfi dirham wa tabaa alfa janaazatin wa aada alfa alfa maridin wa kaannama xara al kitaab allahi manazala ala nabiyihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kaana gayran min xibaadati sabxiina sannatan Malik dafa wax ne képp koo xamante ni julli nga juróom-ñetti rak julli nga juróom-benn rakka ci ñetti sëlmal mu ne rakka bu nekk nga jàng ci faatixatul kitaab ak inna aataynaakal kawsara jàng ko fukki yoon nee na doo jug ci sa barab bi nga nekkoon di ko jullee lu dul ne suñ boroom daf laa jéggal sa bàkkaar yépp mu yu njëkk ak yu mujj nee na itam dina la bindal ci ab yool ni yoolu koo xamante ne aj nga junni yoon aj nga màkk junni yoon te xumra nga itam te sa saraxe nga téeméeri dërëm waaw lool loolu la wax siyaare ji nga junniy bàmmeel junni xabru seeti nga yitam junni ñu feebar mel nga ni itam ku jàng alxuraanul karim ni mu wàccee woon ci yonante bi sallallahu alayhi wa te it suñ boroom dana la bindal ci tiyaabay koo xamante ni jaamu nga yàlla juróom ñaar fukki at jaamu nga ko yàlla suñu borom dana la ko bindal ci ay tiyaaba kon loolu nekk ci ci ay ngëneel rek war naa tax ba kenn ku ci nekk loo xat-xat xat nga fexe ba dugal ko ci sa euh, boole ko ci sa programme mooy fexe ba juróom benn rakk yooyu bariwul kenn ku ci nekk nga fexe ko def juróom benn rakk la soo jullee ñaari rakk da ngay sëlmal julliwaat ñaari rakk sëlmal jullowaat ñaari rakk sëlmal muy juróom benn rakk rakka bu ci nekk benn faatiha nga ciy jàng inna aataynaaka al kawsara nga ciy jàng fukki yoon kon yàlla nañ suñu borom defal a dégg ak topp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah xayra day fi maata bil bisri wal madadi alan